عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا جاين جيف بوكي دلنا جاموتي واتاي بسخن ليلة الكتمية اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ñu baaxoo di ko defee saay bu ñu dëgmalee lii di guddi cheikh guddi cheikh googee nga xamee ne nag moo di laylatul katmiya ana fan la cosaan li jóge naka la maqaama bi ganesee Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ak ba mu ko jotee wax yu kawe ya mu ca yëkkati lu ni mel nag dañu ci ànd ak sëriñ Thierno Kabir xalif général bu Thierno Hassan Deme ay kàddoom Cheikh Tidiane Sakh moko tatan taataan guddi gi leer la di ku am solo la moy comme nima ko waxe sank ci la Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu yek ci maqama bi gëna a kawe moom katmiya moy guddi fukki fan ak juroom ñet ci safar di guddi altiné gannaaw minuit ak genn wal ci la genn moko ko ak qadimam seede Aliou harazin ñu daal di ñu taxaw ci buntu kërëm ben place mu ngi fofu ñu koy wax siqaaqu rawaay lan mo indi turi place bobu ndax Cheikh Tidiane radiallahu anhu dafa massa tok ci kërëm xaatif rabbani ذلك وحنكو يا أحمد التجاني أخرج بصورتي كل من رآك دخل الجنة منكو يا شيخ تجاني اك سما جمو بي كيب كل رك دوغ الجنة سي لا شيخ تجاني جنة تاو سي جبنت كرم فوف نك إني دكو روم دكو خول فوفو نك لا تخاو موك اخديم ام سيدي علي ني دادي جاب ني جيغو نيت جيغو ني عرف عرفة يك سي عرفة فك فوف يونت بي صلى الله عليه وسلم مغي توك مغي كو ور سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا Ibrahim Seydina Moussa Seydina Isa téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeent ci yonent yi téeméeri junne ak ñaar fukki ak junne ak ñeent ci sahaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp ñu ngi ko wër ndénga maam yonent bi daal di jóg ñoom ñëpp ñu jóg Cheikh Tidiane yegsi si yonent bi na ko yaa Ahmad tafaddal ko yaa Ahmad Tidiane yegsi ci la yonent bi jël loxoom teg ko ci loxo Cheikhu Tijaani ñu daal di koy teg xilaafatu ci guddi googu bàyyaa ko mu nekk xalifatullahi fi ardihi wa xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa fi diinihi ci guddi googu nag ci la toog ci maqaamam bi gën kawe moom katmiya kon guddi guddi bu la leer la bi mu ci bi na yàlla bi yàlla na ci bi su ci bu mu wax lim mu bëgg a wax dafa laaj su ko waxee ñu ko ci laajaat dama la wax ne suma ñaari dëggu yi mun ci dox képp kuy wëliyu dalee ci aadama ba bësam pénc maa Cheikh Tidiane dafa boole xatmi ak xatmiya loolu tax la guddi la la di naan ñaan yàlla la te incha allahu am na njort yàlla ne guddi googu lépp luñ ci ñaan rek yàlla nangu laata muy jot ñaari maqaama yooyee fekk na ko nag moom cheikh mu bokk ci fu sell yonent bi dëggal ko jàng na gëstu na moom cheikh Ahmed Tidiane Chérif Chérif radiallahu taala anhu nataal bi Cheikh Tidiane Sarr moo ñu ko baaxee. mu nekk ku sell Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu doom ci ku màgg ka borom xam-xam ba di Sidi Mohamed ibnu El Mokhtar Tidiane ak soxna Aïcha moom nag Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mu ngi juddu ci atum 1737 1738 tombeek 1150 ci atum égir ñaari waajuram yooyu yëpp nag seeni waajur ay boroom xam-xam yu mag lañ woon ñu ñu ràññeeku ci jamono Seydina Ahmed Tidiane di ab shérif pur boo ko xoolee ci ay maamam yu góor mën ngaa dem ba ci Seydina Ali ak soxna Fatimata jaarale ko ci seen doom di Hasan shérif bi mu doon shérif sax sang bii di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko dëggal laata mu koy wax ne sax sa soqeekoo ci Hasan di doom ci Ali loolu lu wër la Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nekkoon ku bëggoon xam-xam ku sell famem yépp bëggoon nag li nga xam ne mooy alxuraan ci juróom-ñaari at sax mu mujj mokkal alxuraan door njàngum fiq jaarale ko ci école imaamu Malik moom Cheikh Ahmed Tidiane nekkoon na koo xam ne teel na yeewu lool ci àdduna ñu xam le ne moom mësul tardé njàngam te it lépp loo xam ne dooroon na ko da koy yeggali nekkoon ku mënoon a sàkku xam-xam ba yàlla jagleel ko lu nu mel moom Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu jaajëf Cheikh saa Sarr guddi Cheikh googee nag ak ngëneel mu làmboo tax na nag yenn ci borom xam di ko màggal ngir jotee ci mbóot mi ak it ngir délai ci fajuk ajo Cheikh Taha dem di kenn ci njabootu Thierno Hassan Deme yëkkati na ci ay kàddu ci micro Cheikh Tidiane Sarr. léeg-léeg katmiya nag di guddi gu màgg guddeeg sant yàlla la guddeeg zikkar la guddeeg fàttaliku xewalu yàlla gu mag googu nga xam ne yàlla mayoon na ko suñu sëriñ suñu wasiile Mawlana Cheikh Ahmad yi ci gudd gu màgg gu sell googu nga xam ne benn gudd farewu ko kaw Cheikh Tidiane jëlee neen ci moom ci mashahid bu di Ali Harazim mu ne yéen mbooloom tijaan yi bu ngeen xamoon lu ne ci guddeeg katmiya gi ci ay xewal ak ay nafaxaat ay leer ak ay barke da ngeen ko jàpp at mu jot ngeen di ko feete léeg-léeg katmiya bi nga xam ne jàpp nañ ko ren ci ñaar fukk fan ak juróom ci weeru septembre muy le vingt cinq septembre tombeeg bisu samedi ñu koy defee ren kem niñ ko doon defee at yi paase yépp ci teewaay bi ci mbooloo mi ci waxtaan ni ci conférence yu màgg yi ci teewaayu kilifa yi ak ci seen ñaan. guddik cheikh googee nag nañu koy màggalee kër Thierno Hassan Deme noonee yi tamit nag la ñu koy dundalee ca lew na seen buntu kër baay ak it daayira bi di ahlul mahabati wal xurba bu Baye Moodu Niass radiyallahu taala anhu Baye Moodu moomee fa taxawaloon guddi gi doom la ci maam Cheikhou Tidiane Ibn Aji Kabir ma ñu duppee Cheikhou Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu Cheikh Ousmane du wut hasard ñu taataan ay kàddoom. Cheikh Ahmed Tidiane Ibn Alhaji alxaaji abdullahi radiallahu anhu moom mooy suñu waajur mooy suñu baay moom Cheikh Ahmed Tidiane moom nettali nañ ne baayam alxaaji abdullahi ñas radiallahu anhu bi muy dem faas la ànd ak soxna suñuy wax ab sutu gay soxna soos moom moo jur Cheikh Ahmed Tidiane wax nañ ne bi muy ànd ak moom di dem faas tolloon na ci aada ci jigéen foo xam ne dañuy wax ne su fi jigéen tolloo dootul amati njaboot mu ànd ak moom mu dem foofu ba faas ba mu àggee mu ne ko ñaanal ci sama xabru sama sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane nga yàlla yàlla may mom mo tuddé ko ko mu ko ah sëriñ bi man fi ma tollu ni ci ay at dégg nga est ce que loolu mën naa nekk mu ko dara tawut sama sëriñ ñaan ko mu ñaan ko bam ko ñaané yalla may ko mom ci ñaan gog ci la soso mu tuddé ko sëriñ ñam Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu kon mom bokku na ci may yu nga xamné mam la Alaaji lay sakko nako fas ci mom ci may yooyu la di doomi ñaan yalla di doomi ñaan yalla doomam tay ji dem adina di dox ba mu taxawal li nga ne moo di laylatul gisé lolu ah lolu loolu yàlla la bu baax ndaxte su fekkee ne maam Alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu dafa dem ba Faas ñaan fa loolu yàlla may ko ko sëtam taxawal guddeeg leeletul kadmiya kon loolu du loo xam ne lu jaas la daal loolu sant yàlla la ndaxte guddi gi ba mu koy taxawal wax nañ ne ci néeg sa lañ ko daan defee def rek guddeeg sikkar mu dem dem ba nga xam ne ay mag wax nañ ko ne ko génne ko ci biti nit ñi jëriñu ci ba mu ko génnee ci biti xalifa Maolana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu radiallahu anhu moom moo ko ñëw taxawal ko ko xalifa bii nga xam ne moom moo toog fii ci waxtu wi nii moom moo njëkk def conférence foofu ba léegi nii moom moo koy taxawal cheikh mouhamadul mahi ibrahim Niass radiallahu anhu mu nekkoon cheikh Ousmane Niass ibnu maam cheikhu Tidiane ibnu Haji Abdallah al Kabir papa Aliou Thiam bokk ci yarub maam cheikhu Tidiane moomee ma nga ñuy xamalee góor gu seelu googee ak jikko yu kawe ya mu làmboo woon maam cheikhu day moo ma yar moo ma jàngal sampal ma kër mosuma teqalikoo moom mu doon xam nit ku yàlla may la ku am ngor la ku am diine la ku mën a yare la te waxtu woo xamee ne yaa ngi nekk ak moom lépp lu baax dana la ci xiir te it ab yaram du ko booleeg di la wax wax ju naqari wala mu di la yar yarab nit ku bon dana la oo cim néeg wax la lam la war a wax boo des gor boo liggéey dutoo ci dellu mu nit ku jàmbure ku nangoo liggéey bëgg bëggit ku nangoo liggéey di nit ku xam jàmm te du tooñ kenn bëggul it kuy tooñ wax dëgg yàlla day ñun ñi weer de sant nañ yàlla ndax ñeewuñ kenn ci lenn ndax dañu daan wax ne li gën a am mooy doylu li la yàlla jox soo ko doyloo kenn xëppalewu la waaye su la doyluwoo ko it bët bi set ci ngay nekk moo tax ñun ñim yar amul ci kenn koo xam ne da nga ñee kenn ci lenn wax dëgg yàlla ku dal la woon ku xam jàmm ku mën a woote jàmm te it fépp foo xam ne féewu am na fa bu fa demee jàmm fay mujj wax dëgg yàlla mbooleem fu mas a nekkit jàmm la fa nekkee fu mu fa nekkit mbooloo ma yëpp nañ am jàmm te nañ ko déggal muy ci njawara muy ci kët biraan jëng fii ci kaw la fu mu fi mas a nekk rek jàmm fa nekk ak ñoom te képp ku taqoog ci jàmm ngay nekk